Dakar at bu nekk mi perte lu toll milliards de francs CFA par an perte yoyu nak liko ko waral mooy khat euh, yu congestion pollution de l'air ak euh, accident de la route motax euh, dafa am ay djego yu am solo yu gouvernement bi dox ci président de la république son excellence Macky Sall moy ñu investir lu am dayo ci matuwaay yi nga xam day jël ay nit yu bari ci benn yoon loolu moy terre bi moy BRT bi ñu lënkale ko ak euh, réseau rabattement bi nga xam dafa wara ñew muy 3 troisième grand projet de transport de Dakar waye benen matuwaay bi tamit moy ñu fexé ba euh, équilibré euh, territoire yi soxla dem ak dikk yi ci jox gox yi li fa war ci dëkkuwaay ak emploi loolu moy ville nouvelle yi ak pôle d'équilibre yi ngeen di dégg bu ma dellu see ci BRT bi nag tey dafa nekk euh, étape boo xam ne bu am solo la euh, ci kilifteefu gouverneur ñu tijji li ñuy wax euh, test yi test yi mooy ñuy permettre ñu tàggat BRT bi xool nan lay jaar jaaree ci couloir bi nan lay def ak station yi nga xam ne ñoo war a jël nit yi tàggat tamit dañuy tàggat chauffeur yi

am lo xamne dafa am solo ci njeexital ci alam bi moy bis ci électrique la amul ben toke bo xamne daf ci jugge benen bi moy bis ci dañu dañ ci nam mu alimenter wu ak énergie solaire donc lolu Sénégal moko ko def ci aduna bi légui nak test ci ñetti wër lañ koy def Euh, buñ ci paree ba valider lépp euh, tàggat nit yi war a dawal euh, bus yi dinañ jàll ci exploitation bi incha allah comme ni ko kilifa yi bëggee ñu ngi koy yaakaar ci ci ci ci fin d'année bi loolu lañ fi indi woon tey di ñaan tamit population sénégalaise bi yëpp di ñaan askan bi ñi nekk ci couloir bi ak ñi ko jege ñu gunge ñu ci liggéey bi ndax li ñuy def nii yëpp askan bi moo ko waral am na leneen tamit loo xam ne war nañ ko wax liggéey bi am na luñ ci yàqoon lu bëri ci manifestation yi weesu ñu ngi koy xayma ci lu ëpp euh, cinq milliards teewul nag euh, sunu euh, yitte yëpp mooy ànd ak ñi war a def liggéey bi liggéey ko ñu ngi ci def sunu kemtalay kàttan te yaakaar nañ ne dina sotti bu neexee yàlla mu nekk tamit occasion pour man pour me sensibiliser population bi waxat euh, euh, jeune yi ne projet bi seen projet la projet bi liñ ci choono yiñ ci def yépp ci président ba ci ouvrier yi euh objectif bi yépp moy jox sénégalais yi liñu mérito liñu mérito moy li gën ci aduna bi fexé ba kuy ministre gouverneur mën a ànd ak sunu yaay bu jaay gerte Petersen comme ni ko waxé won sank mën a bokk même matuwaay lolou tam développement la euh, projet bi tamit dina indi euh, junni emploi euh, junni xëy lay indi ñu ko ndaw yi motax yak waru ci am ndax li pour Sénégal la nañ ko def momel euh ko ndax bi pour yokk kom nga mi ngi am ci

réalisation bu am solo la euh, gis ni euh, euh, lu nga xam ni ouvrage de dernière génération ak qualité bu am solo moom le président de la république indil Sénégal léegi nag li ci des mooy que ñun ñi nga xam ni ñun la ñu indil ouvrage bi ñu wane ni ouvrage bi lu ñu bëgg la lu ñu soxla la lu ñu yelloo la loolu mooy lan mooy que population yi nga xam ni tey jii ñoom ñoo ñooy bénéficiaire ouvrage bi ñu toppatoo ko ñu jàppale équipe technique yi ba test yi ñu def ko ci anam yu mucc ayib ba ëllëg incha allah ñu mën a livrer ouvrage bi à son excellence monsieur le président public mu teg ko ci loxo askan bi bu ko defee euh, exploitation bi commencé maintenant maintenant ci biir loolu gis nañ ni amna ñu nga xamni ñi ngi occupé en prise projet bi may fàttali ni projet bu mu ci tollo defoon recensement ñëpp ñi nga xamni ñi ngi won ci yoon bi euh, évaluer won nañu également li nga xamni ni lañu la ñu perte loolu lepp machallah projet bi euh, def na ko ci xaalis mu fay ko ñi nga xamni ni fi nekkoon pour ñu libérer en prison. bi waaye gis nañ ni.

jël nañu toutes les dispositions préfet de Dakar moom l'a àndal pour li concerner Dakar préfet Guédiawaye pour les concerner Guédiawaye pour que effectivement nous libérer en prison. ci nous mu gën a gaawe effectivement duñ ci am benn choono bu nga xamni choono choono choono coono fay la wala leneen ndax li ñu waroon fay bañ ci tollé fay nañ ko ba mu mot sëkk suma paré ci ñooña

jël na moom it toutes les dispositions ba ordre bi nga xam ne moo war a am fii ci couloir bi BRT ñu préserver ko euh, jàmm ji fi war a am également ñu amal ko et ñi nga xam ne également ñooy emprunter le bus ñu dugg ci ci jàmm ak salaam dem fa ñu jëm ci jàmm ak salaam egg ci jàmm ak salaam. si guddi la seen équipe yi wàcc. waaw ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a ñëw pour def le désencombrement amul luñ ci nëbb. dañ koy wax mu leer tey ci guddi liggéey bi dina tàmbali ak préfet bu Dakar ak euh, commissariat central bu Dakar bu ñu paree ci Ndakaaru semaine prochaine préfet bu Géejawaay dina jël relais moom it la ñu war a teggi foofu ci Géejawaay dana ko teggi ci nu mu gën a gaawee nu mu gën a rafete nu mu gën a selle incha allah. merci merci.